mbokki journaliste yi euh, diggante ki ñu toll ak élection présidentielle yi di ñëw li ci des matatul at fukki weer la ak benn donc bala ñuy dugg ci woote ak ku ñuy sànnil li fi nekkoon ci fukki at yi passé laajoon na bilan laajoon na taxaw seetlu bilan boobu ak taxaw seetlu dañu am kuréel bu ñu sos bu ñuy wax entente des forces de l'opposition euh, muy commencement bi ñeenti parti politique légalement constitué muy ëllëg si biir arc ñu gën ko xam may président bi euh, ñu def ma ma di ko nekk coordonnateur bi beneen parti rassemblement des patriotes républicains également muy parti régulièrement constitué parti africain pour la citoyenneté et le travail parti de rassemblement démocratique et social am na ñeneen ñoo xam ne sax bëgg nañ ñu fekk si mais ñu nu mën a engagé mooy ñi nga xam ne ñu ñoo doon réunion ay fan ay yooni yoon lu ëpp ñeenti yoon ñu di ko réunion di waajal waxtaan wi ñu bëgg a waxtaan ak askan wi mu jëm ci bilan bi nga xam ne moom mooy bilan bi topp Macky sàll bi mu toogee 2012 ba suñu joono yàlla tey biñ ko xayma gis nañu manqué manqué bari na Sénégal xaalis bu bari dugg na fi ndax Sénégal yi ñu ngi liggéey liggéey bu baax bailleurs de fonds yi ñu ngi jox Sénégal xaalis bu bari Sénégal pétrole feeñ na fi zircon ak yeneen ngëneel yoo xam ne tax na ñiy lebale xaalis wóolu nañu looloo tax ngeen mën a am TER bi wax ak li ci def ci alal dañu ko lebal stade Léopold stade euh, Abdoulaye Wade bi nekk Diamniadio cent dix milliards dañu ko lebal arena def naa def nañ fa soixante milliards dañ ñu ko lebal ñu ngi def BRT gas nañu dëkk bi yëpp ñu ngi tabax beerte BRT sa baax na waaye xaalis aussi dañu ko lebal ce qui veut dire que alalu Sénégal fi mu nekk lu bari dañ koy taylee naam tabax sax baax na waaye mën nañoo seet na mu gën a yombe na mu gën a yolamari ci askan wi nan lañ mën a def ba mën a sakkanal ba a yaxanal alalu Sénégal ndax li ñu lebal yëpp sunu doom yi ak suñu sët yi ñoo ko naka fay dem nag ñu ne dëkk bi am na pétrole lu fa génn ñu fayee ko ay bor loolu aussi jar na xoolaat xam taxaw seetlu yëpp seet nañ def nañ ci jëm ci nit ñi nga xam ne dañu yàgg xeex démocratie jamono Senghor ba nëgën nit ñi dugg ci ay kaso nit ñi ñu tàq ci leen ci seen liggéey am na sax ñu ci faatu dañu seet na yu bari yoo xam ne amoon nañ ko muy droit nga marche droit nga wax sa xalaat droit nga am rassemblement nga am droit ci def rassemblement yooyu yëpp régime Macky Sall da ko delloo ginnaaw delloo ginnaaw boo xam ne bu nu bàyyee mu dox tuuti dana dem ba def naa lu jamono Senghor moo nar a ci dëkk bi nga jël wàllu xale yi xëyu ndaw yi ñuy wax xale yi liggéeyuñu ku wedd mën nga def référendum mbaa nga def bilan fa nga dëkk <clears throat> maanaam xoolal kër gi nga jàkkaarlool ñaata nit dafa am liggéey ci xale yi xoolal kër gi nga jël ñaata nit ñoo fa am liggéey ci xale yi xoolal sa ndeyjoor ña nga dëkkal ñaata xale ñoo fa am liggéey ak sa càmmoñ dafa naan kooku bilan boobu ku nekk mën na ko def te boo ko defee objectivement di nga xam ne xale yi liggéeyuñu dafa am ay melax melax yu ñuy génnee ne année année nangam xaalis bi jaar na fële génn na fële mais xale yi moom tàmbale ko suñuy njaboot ay master un ay master deux ay baccalauréat yoo xam ne ñu ngi taxawaalu man HLM laa dëkk fëgg jaayu HLM bi léegi ay diplômé xale yu génn université nekk université ñun dàq leen seen jàng ba nul ñoo fa nekk di jaay fëgg jaay boo ñëw ci xomba bi li lay gën a jaaxal lu musul am Sénégal garage yu Jakarta nga fay fekk avant ay taxi moo fa daan am ak i bus léegi boo demee lu mat ñaar fukki jakarta xale yëpp depp na ne jakarta mu fi sës moom la def donc li waykat bi ne woon xale yi ku leen yërëm ku leen juróon yërëm donc situation boobu aussi dañ koy rek ci bilan wu Macky li gën metti ci fukki at yi ñu weesu mooy tëj yi ñoo dem ba kaso jombatul kenn ku yëngu mu tëj ku wax mu tëj tëj télé yi tëj rajo yi loolu yëpp dafay indi démocratie dellu ginnaaw te moom démocratie moo ko fi tegoon ndax ñu ngi fàttaliku jamono Abdoulaye Wade xeex yi mu xeex ak régime Abdoulaye Wade ñu bari àndoon ak moom ñun ñi sax Abdoulaye naam la ñu àndaloon mais amoon na ci point yoo xam ne sax ñun jàppoon nañ ne loolu démocratie daf ko laajoon kon nag bu fekkee dem na ba yàlla yëkkati nguur gi teg ko ci ay loxoom démocratie da ko waroon a jëme kanam waaye boo ko woon a jéem pour delloo ko ginnaaw donc ci gàttal taxaw seet yooyu la ñu am fukki at yi nga xam ne mag Sall def na ko ci dëkk bi ak tolof tolof yi fi nekk te it débat bu mag bii fi am muy troisième mandat bi ndax constitution bi li wax leer na nit amul droit def ñaari mandat yu toppante waxul ay at naan sept ans cinq ans ñi ko bëgg a indi dañu bëgg a indi njuuj njaaj mais constitution bi li mu wax mooy ñaari mandaa yu toppante kon moom amul benn droit pour ne dafay laaj troisième mandat te incha allahu taala danañ ci taxaw suñu kémt lay kattan ba loolu bu am suñu entente bii ñu xam ne moom lañ def mu nekk pôle de l'opposition xeexam bu ñëpp mooy restaurer la démocratie bi ñuy dem référendum mu def constitution bi daal ne moom mandat bi mooy mujj ci mandat man na moo ne ñaareelu mandat moom tëj na ko verrouillé na ko ba beneen mandat du fi am ñun suñu coalition boobu ñu bokk ay PDS bokk waa ñëpp rek euh, taxawu Dakar ak xalifa sàll boobu Saliou Sa moo ñëwoon waa Sonko yi ak opposition yëpp ñu ngi tudd woon suñu coalition bi gox ca wax ca gox ca wax jooju ñu tuddoon la dafa dellu si waat tey Macky Sall moo waxoon ne ñaari mandat lay yem. kon mu neex ko wala mu naqari ko ñun dara nu def dañ ko obligé mu yemale màndaa bi ci fii nga xam ne fukki weer ak benn moo ci des bu forcé nag lépp lu ñu yoon may lépp lu ñu démocratie may lépp lu ñu fulla ak fayda may danoon ko taxaw ba ñuy daanelee mooy ñaari pôle moo fi nekk muy pôlu Yewwi mooy waa Sonko waa Khalifa Sall ak ñooña beneen pole bi di yaaw yi muy PDS ak i xaritam ñaari pôle yooyu moo fi nekk ñun ñoo leen di ñetteel muy entente des forces de l'opposition de nekkuñu gauche nekkuñu droite waaye nag ñun ñëpp lu ñu bëgg a waxat koo xam ne daal conviction et nekk na ci yow koo xam ne troisième mandat da nga koy xeex koo xam nga jàpp na ne néew doole yi ñuy néew doole gaañ yi àndoo ci ñun boo ñëwee daan la fat seetuñu sa passé seetu leen lu li suñu kanam dañuy ñuy xool parce que pour dañoo jàpp ne du règlement de compte masalan man bi may njëkk a def politique maa ngi ko def ak jibalitika te jamono te jibalitika ñëpp ne serge yàlla na ko yàlla yërëm point histoire bi laay ngi àndoon na ak Abdou Diouf ak Senghor mais teewul ñu mën a ànd moom constituer pôle de l'opposition ba jëlee fi li ko neewoon en 2000 ñu def alternance bu rafet alternance bu set alternance boo xam dañoo woote dimanche leen di ñëpp liggéey yi xale yi jàngi jàmm am si réew mi kon nag koo xam ne loolu aussi mën nga ko dellu si ñu ànd jële fi lii ñu fi jëlee ñun boo ñëwee daan la fat bu ñu xool foo jógee bu ñu xool sa démb parce que politique du règlement de compte politique da ngay yokk waaye doo wàññi. fay ay experts yoo xam ne dem nañu banque ni ci àddina bi yëpp ñooñu li jot ci li leen fay rek ay centaines de millions loolu yëpp dafa xëy saay ñuy wax waxu amnistie ak maanaam face effacé comme nañu euh, dara musul a musul a xew moo tax dès le départ ñun déjà ako créé musu ñu ko gëm te it histoire dam nañu dëggal na li ñu ndax kenn gisuñu fi dara lu taxaw moo tax aji boobu bu ñu ko dee menacé tamit dama naan lu ne mën naa nekk mën naa joxe exemple Khalifa Sall problème fan la mujj problème ay dara si la waxee na ab chèque lañ ko joxoon nee nañu ñu accusé ko ne transfert de fonds nanga mën a jël dugal ci kaso ba mu neex leen ñu koy soog a ubbi nga jël Omar Sarr bi actuellement mi ngi ci côté Macky Sall jàpp nañ ko fii tëj nañ ko fii fexe nañ ko mu génn ci dëkk bi fan la mujj donc Sénégal dafa gën a dox ci jaay doole que loolu moo gën a tax nag gox yëpp dañoo wax a taxaw pour lii dakk dëgg taxaw euh, xeex yi ñu def yëpp ñun on a présent amul match bu ñu def bu ñu taxawu amul réunion bu ñu def bu ñu taxawu amul sitting bu ñu def bu ñu taxawu mais lu ñu seetlu aussi ne bu demee ba ci léeg-léeg nag loolu dañu xam lu ñu nuru ndax bu demee def sacrifice yooyu yëpp ci wàllu opposition bu demee bu jub élection législative wala ñu jub les élections locales ñi nga xam ne dañoo bokkoon ak ñoom coalition mu doon coalition avec le PDS FPDR ñu joué ci un rôle essentiel muy la coalition gox ca wax ja bi ñu def référendum est en yooyu bu amee yëpp ñun lu ñu bëggee woon gaa ñu doxee ni dañuy doxewu ñu nag du ñu sànni kenn baat bu dul noonu waaye nag dañuy constaté ne chaque fois bu ñu demee a def investiture dañuy jekki-jekki daal suñu gaa ñu dootuñu leen xàmmee comme nag màgg nañu parce que bu def douze ans d' opposition am na loo ci dund ñi ñu décidé ak ñi nga xam ñoo bokk gis-gis ñu ne ñun ñu ngi ci opposition cent pour cent waaye nag ngi xam ne accompagné nañu ñoom depuis douze ans ci échéance yëpp ñaari législative jaar fi ñaari élection municipale jaar te duñ la associé duñ la boolee ci pratiquement dara ñu ne nag jot na pour ñu taxaw suñu taxawaay bopp loolu moo expliqué ñu am suñu pôle suñu pôle bopp comme ñëpp ndax na dañoo dëkk ci dëkk bi aussi nag jànge nit ñi xam ñu ñu am mbooloo trouvé nañ ñun pour dañu am coalition politique amuñu coalition électorale amul kenn nekkagul candidat kenn waxagul candidat ñun réew mi lañu wax ak bilan wu Macky Sall bu ñu ba xam ne fi jub na la ba ubbi nañu candidat yi Ibou Diatta mii parti la yore bu ko neexee mu ne man damay nekk candidat man bu ma neexee ma ne damay nekk candidat candidat tel mais pour l'instant ñun waxuñu candidat dañ ne nan lañ defee opposition tey it ñii ñu jàkkaarloo muy waa kër Macky yi dañoo nelawul te kuy xeex ak ñoom doo nelaw moo tax ñun ñuy fàggas digu xoddiku ci bala ngay lakkale